te woon ci ginnaaw douzième gaynde bépp sénégalais taxawaay taxawaay bu mët sëkk ful ak fayda xam ni nation sénégal bu soxlaa ñëpp loo répondre Fatou Abdou Caravane fa la jógee Mali xam nga tellement y a un problème entre Sénégal ak Mali ak les frontières mais def nañ autorisation ba traversé ba ñëw ñii jógee Gambie ñii jógee Mauritanie ñëpp nekk benn xool benn direction nekk ci ginnaaw les lions. mu am ndam mais man gisuma. benn génn waa ay laser tamit. mais laser yi attendez xam nga c'est ce qu'il faut pas oublier match bi aller retour la woon. Mhm. mais li égyptiens yi def moo gën a ñaaw li Sénégal yi def mais kenn na ko ci mais débat bi ñu installé nii c'est inutile. et Égypte ñi ak ñi égyptiens yi et les européens di wax ne débat bi la fan lañ nekkoon bi ñuy saaga Sadio Mané ci aéroport bi fan lañ nekkoon bi ñuy saaga Aliou fan lañ nekkoon bi ñuy teg légère suñu góor ak suñu joueurs Fallait fan lañ nekkoon bi ñuy cospier l'hymne national loolu c'est plus grave que li euh, mais hymne national mais la FIFA daf ci a ay sanctions contre l'Égypte ñun dañoo def plainte encore contre l'Égypte man de bokk naa si ñu def plainte contre Égypte parce que pourquoi muy cospier suñu hymne national mhm. loolu bokk si sportivité bokk je fair play mais évidemment ñun bi ñu xamee ne match bi am dañu à la mobilisation le peuple à travers le deuxième gain. mais dañu defoon ay code le premier code mu tous au club national. deuxième point mooy nekkoon chanter en chœur l'hymne national troisième point bi moo motiver suñuy joueurs pousser galvaniser vers la qualification et quatrième point moo nekkoon perturber les égyptiens à cette touche de balle et on l'a fait mais c'était ça donc il y a une stratégie. non dañu stratégie comme les joueurs dañu a seen stratégie Avec ce système système et on l'a réussi. Mhm. je pense que bravo aux joueurs bravo aux stratégies médicales. mais bravo nous peuple sénégalais. Mhm. absolument c'est extrêmement important. Mhm. et c'est le lieu de les féliciter. nous avons toujours dit Sénégal manque au Tindamli. li. plateforme la boo xam Sénégal et on les conséquences. tant qu'on est ensemble on va très loin et.

fii amul sax dialogue islam chrétien fii cohabitation moo fi am. parce que benn lañ. c'est clair c'est clair bi mooy man musum man ndax ñuy wax dañ may jaaxal. parce que ñoom li ñu def rek la leen ñun moom lañ leen def. parce que ñoom ñoo ko njëkkee. et man li ma mënul nangu ñuy tëgg sa li kiiwu réew.

un nous gagnons un quatre minutes nous nous prolongation série de tirs au but Nous ko gagné nous avons raté raté donc peut-être déception la. moi je préfère rester sur. Euh, la déclaration du coach quand même, Keros, mhm. qui a félicité le Sénégal, mhm. qui a estimé que le Sénégal était meilleur, et qui a même formulé des prières pour le mhm. Sénégal parce que, comme il l'a dit, le Sénégal représente aussi l'Égypte. Je préfère vraiment man bien qu'après euh, il a démissionné il a démissionné démissionné et puis il a dit Boulon Sagom du Sénégal parce que jàpp na ni ñaar ni Coupe d'Afrique Mhm. Mais le tirage donc Égypte sonal commencé maturité peut-être. l'Égypte non si l'Égypte nous a toujours battu éliminé sur des détails. 2006 qui mu koy wax am nañ penalty bu l'air nañ Camara. arbitre bi ko ñu gagné ñu. Mhm. ak ak mhm. même big boy Sané, big Égypte bi di échauffé wu tu as vu ñoom ñoo ñëw wax ak public bi ne leen non non non non pas de ça ñoom ñoo for ak génne ko. man foofu la waxee ne. ñu xaw ko éviter tuuti. mais aussi benn côté. loolu benn c'était bien parce que parce que moo indi.

mais lolu amu donc bo xolé ñom ñom Sadio Mané protégé nañ après gars dañu mhm. peut-être liñu wara moytu c'est l'envahissement. même envahissement mhm. c'était pour. vraiment montrer la la joie des supporters. qualifiés fin de partie donc mhm. donc man japp na dal Égypte dañuy wut mais lélé sax dara day am am dañ dañ na kii seddal loolu yëpp système la si biir dañuy jékki-jékki ñun sax suñu biir ñu ne booy tàngalal kii ñëw di tàngal ñu après ñu ne non booy seddalal seddalal mais yëpp c'est important passé foofu waaw mais man tamit am na lu lu ma remercier BOUPS mais ils ont, fait un travail remarquable. Mm-hmm. parce que xam nga public au Sénégal. par moment day un spectateur. day mm-hmm. day mais ñoom vraiment nous sommes yor micro yi. bu gars ont di c'était extraordinaire donc peut être beaucoup qui ci li contribuer à cette victoire du du Sénégal façon que nous sànq du système bi euh, certes nous sommes qualifiés. Mm-hmm. Euh, pour la coupe du monde dañu Qatar nous ñu koy mais parlons du. système système de Aliou Cissé. Mhm. Euh, système bobu nonu nga xamné gis nañu ko ñu dem ak euh, Égypte final euh, même jeu bi dem ba fi nga xamné moy prolongation dem ci bi reprendre peut-être la même chose système bobu nonu également nak nga ko gissé xam nga man lima gis parce que. parce que souvent ñu bari japp nañu dañuy am problème ci li nga xamné mom moy système bi bu fekkee né équipe bi dafa indi ben doxalin bo xamné ñun pour ñu mënu ko dégg. xam nga système mu Aliou Cissé bi ku si nekk yaa ngi siy wax xoolal li ma lay wax depuis bi Aliou Cissé yore équipe ba léegi ñu ngi wax système mais toujours moom dafa dee ak système am ak li gëm mais si biir système yi boo xoolee ça dépend équipe bi ngay dajeel ak match bi lan lay laaj parce que ni mu jouer Égypte ak système bi mu teg Égypte ak bi mu jouer Dakar c'est différent ça dit il faut que ñu comprendre les contextes d'aujourd'hui et les contextes demain du benn aussi mais beneen bi nañ bàyyi xel fenn tey Égypte mi ñu effectivement njëkk na jeex moom cent vingt minutes mënuñu ko dugal ñu jeex waa tax moom 90 vingt dugal posé nañ question ne Égypte bi ñu mënul dugal loolu mais naka lañ koy mën a dugalee euh, match bi di ñëw nii ba war a mën a dugal deux bi mais si biir loolu bu leen fàtte ne équipe bi kenn mënu la wax ne du créer occasion de but dafay créer ay occasion de but mooy li ma doon wax ne équipe nationale contre l'Égypte final il a dafa créé lu mu lu bon bon 3 à 4 occasions de but. Mm-hmm. match bi ñu dem lu bon bon bon créé na 2 ou 3 occasions de but après il y a une rectification yu war def mooy comme match bi passé comme am avant centre de pointe bo xamné normalement amna na bal yoo xam ne warul dernière tiers bi ki nga xamné day pour dem man c'est ce que j'ai dit parce que match day tollu fo xamné tay malgré défensif au joue défensif, mais si devant, on avait Sadio Mane, on avait Ismaël Assar, mais des fois, Famara, est-ce que explosion au Bobo, on war a def noonu non le war que soit que Boulaye ou que soit que Abdou Diallo ça il faut que Bamba il faut que nous centre c'est des bons avancées mais il faut que dernière tiers nous devons def sen bopp ne il doit pas penser de jouer de trop. exactement c'est le dernier tiers bon xam fof lañ doon amee problème parce que bal yu bari foofu la doon jaar boo xoolee match bi passé ni je l'ai dit am na télé yoo xam ne du ma ko tudda wax naa ko ñu wax ma ne leen problème bi avec le système je comprends mais ni ku nekk yow yaay xool li la doy ak effectif bi nga am nga liggéey si loolu tey demal ku mu demal ko mel ni Égypte Égypte seen système bi ñu ngi ko liggéey si kan si Mohamed Salah à Trezeguet tey à l'époque boo daan joué joué Barça malgré Barça dañuy jouer mais fan la ñuy wéeru si Metz la ñuy wéeru comme ça dit, né lolu dañ ko fekk fi ci football Ça dit, dire il faut que des fois ce système di nga am si koy mais maintenant ñun liñ doon déssé moy le dernier tiers. maintenant nous, mëno football pendant 90 minutes ta du am ay erreurs des fois des problèmes de remplaçant mun na am ay détails mënul ñak man sama point de vue je donne comme match bi passé tey jii nii tey jii bi mu démé ba dernière minute man je préféroon Idrissa Gana ñew Nampalys stock fofu non. mais après. man nekkuma si xelu entraîneur bi. Mhm. bu ñu fàtte ne kooku beneen côté la mais beneen côté jàppale ne entraîneur tamit dafa am ay homme de confiance am ay homme de base am parce que say homme de base. du waroo leen génne seen équipe parce que ñooñu li ngay soxla chaque jour. ñoo la koy defaral parce que ça fait longtemps mhm. ñu si équipe bi. Mhm. euh, c'est vrai, c'est vrai que c'est une année de performance et de sacre euh, parce que boo jëlee Coupe d'Afrique euh, jëm qualification Coupe du Monde critique yi du bari comme na mu Barré ay ay jamono mais bataille tey am na ñoo xam ne système bi quand même am na lu ñu ci mën wax bu Égypte souvent bu defee bloc bas Sénégal fait am jafe-jafe pour ñëwaat nag nga ko gisee. non xam nga man du ma xam nga tax wax système tey par exemple bu Ismaïla Sarr dugaloon bal yooyu kenn du wax personne n'aurait crié au scandale parce que l'autre aussi ce n'est pas l'entraîneur mhm. comprendre l'entraîneur a eu raison sur nous parce qu'il a eu des résultats non c'est mais man d'accord il a eu des résultats il a raison sur nous qu'on le veuille ou pas parce que nous def na fi loo Nous ne deux fois qualifié